waaw loolu gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi salaaw sant Serigne tubaa euh, sa ñaana mu Mountakha mu yàgg fi lool ci wér euh, mu doon bis bu kontaan boo xam ne nii ñu ngi remercier le président de fédération euh, du département bi wala région bi sax laay wax mu ci wàllu karaate di sunu xarit Serigne Modou Kéemaan Diop ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm ndax moom day doon kenn ci ñun ñu àndi ci wàllu politique it mu jiite lii nga xam ne mooy fédération bi bu loolu jàlleet ñu kontaan lool ci li nga xam ne ay ndaw lan yoo xam ne nii yu def tàggat yaram ca tàggat yaram ah, bokk ci jaamu sun borom tabaaraka wa taala beneen bi ci des it bàkk ci li nga xam ne tamati ah, mooy ah, wàllu santé mu doon lu ci am solo rawatina ñu doon ay ndaw yoo xam ne nii tey. ëllëg ñoo nekk yaakaari réew mi ëllëg ñoom ñoo ñooy doon ñi nga xam ne réew mi ci ñoom lañ compté kon ndaw yooyu tey bu ndajaloo tàmbalee ci 10 ans ak ba ay même ay 8 ans sax gis naa ko fi ba ay 15 ans ay 30 ans ba ci ay mag sax ñi ngi ci kon tey ñu jël bis bu toll noonu jëmmalee ma ko dama danaa ci kontaan bu baax a baax ànd koog ñoom ci le ak lu man mu fas yéene ko tamit duñ ko yemalee ci lii parce que lii c'est une première liñ bëgg tamit waxtu mu ñëwatee ñu ànd ko ak ñoom euh, jàppale leen ci côté yu mel noonu ndax loolu tamati bokk na ci liy avancé loo département bi bokku na tamati li nga xam ne tamati mooy li li mën a doxal département bi muy ay ndaw di dajaloo jëm ci sport ca euh, mbirum karaté dafa doon mbir mu yéeme ndax bi ci ñi njëkk a mooy boo xoolee tableau bi da nga gis ne liñ ci bind mooy discipline ak travail ak réussite yooyu nag mooy mooy li nga xam ne moo ëmb doomi aadama euh, ndax yaru ci la lépp nekk boo fekkee ñi nga xam ne tamat ñuy def karaté ñëpp xam na ne nit lañ ñoo xam ne seen éducation day am solo lool. beneen ba ci des muy nit ñi ñoo xam ne dañuy liggéey ci biir loolu it seen réussite da cee nekk ndax doomi aadama bu tënkoo ci yar ak liggéey lépp lu mu bëgg ci àddunaam dana ko am ci ñi nga xam ne ñi ngi jëm ci wàllu karaté seen xalaat ak seen lépp ci lool la jëm. teew nag ñu yor ay ñii nekk ay étudiants ñii nekk tamit ay jàngalekat ñi nekk tamit ay liggéeykat waaye nag lépp ñu jël sport bi teg ko ci seen kanam ah di ci liggéey di ci jàngale kon tey bu taxawee en tant que acteur politique ci seen kanam du def lu sant leen ci li nga xam ne moom la ñu ko jagleele ban man ci participer ci bis bi jërëjëf. ligue départementale ak ligue régionale bi de Kraté li ngeen doon organisé waaw man maay président district départemental de Kraté. championnat départemental cadets junior mom la ñu organisé tay ligui nak euh, bi ma premier président ba légui bi moy première édition bi loolu mom non ñu kontaan noonu nak tout la famille Bureau ñi ngi fi tay ñëpp ñoom ñu ngi ñu def département bi ñëw nañu fi muy maître yi muy encadrement yi muy coach yi muy supporters yi muy muy muy muy muy muy parents d'élèves ñëpp ñëw nañu fi ñu def fête bi ci ci commencé jàmm bu jeex jàmm. les meilleurs gagnent ndax bo leen espoir ba légui ya nga fa gis ay violence ak yeneen mais fi gis nga su kenn gagné ki gagné daf koy accordat nuyu ko ñu and dem loolu def naa ne mooy mooy aaru sport mooy aaru karaté loolu nag moo taxal ñu def ko tey bi ci dem ñu gën a kontaan ñu paralel ko suñu xarit bi suñu mag bi suñu xarit bi suñu Modou Mbacké Bardoli mu ñëw def ci lu rafet ànd ak forte délégation ñëw teewe ci jël alalam def ci kon loolu dañuy sot dañ ci kontaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw loolu xam nga ñun lepp lo xamne aramul lañ koy def ta bo xol digeen tuba ak Mbacke espoir bu ñu mën sa aramul karate la ndax digeen bu ñu mooy diggante timis ak gée su jotee dañuy selma dem julli dal ñewat ñewat ci li def bo yeneen espoir muy beure da ngay summeeku bu dee football mëno def lol léegi suñu yàlla dimbali ñu espoir bo xamne da dagan na yaqul da ci suñu sëri yaqul da suñu kilifa diine lol dañ ci contane bëgg ci lool di ña tey invité rek ñepp ñew ba ñëw def ci karate karate la manam daxub lem la képp ko ñewal la doo ko xam waaye ko ñam ko tàmbalem do do ko baye leg ñi invité ñepp ñoo ñoo def ko inshallah waaw